وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين نعم سنت ربي جل وعلا بجل سما سنته صلى الله عليه وسلم من هو كرم في صحابة كيف تغسل ولك رقص تقوى kon tey incha allah nekk sunu ñeenteelu jotaay jataay yi nga xam ne dañ ci leeral téere bii di muqaddima jaami fi sunani wal adab wal maghaazi wal taarix ki ci koy defal di al docteur Sakhir Gueye hafidahullahu tabaraka wa taala kon xam naa dañ koy dal dañ koy bàyyi rek mu tàmbali ñaan suñu borom tabaraka wa taala dëgg kon tafarwal bi dafa toog mashkuur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 wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma baat ñu dellusiwaat ci sunu jotaay yi nu jagleel fi sunani wal aadaabi wal magaazi muy waxtaanee pas-pasi kuréel bu mucc gi di pas-pas bi fi yonent bi sallallahu alayhi wa bàyyi mag ñu baax ñi nekkoon ci ki ñu bindal muqaddima bii nag mooy ibnu abi zeyd alxayrawaani yal na ko yàlla yërëm te sàmm ci gannaawam boole nu ñépp bés benn ci aljanna firdaws ñu waxtaane woon ci jotaayu démb bi am mbind mu jëm ci turi borom bi tabaraka wa taala ak melokaanam muy tur yi gën a sell ci tur di melokaan it yi gën a kowe ñu taxawee woon fi borom téere bi di xam leen ni aljanna ak safara ñoom ñaar ñépp yàlla bind na leen ca ñoo ngi fi jamono jile te muy dëgg gu wér ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa teg teg na ca bëtam aljanna di kër gi nga xam ne moom la yàlla prépareel ñi ko ragal safara di kër gi yàlla prépareel ñi ko weddi mu xamle it ne ñaari kër yooyu yépp duy sax lañu du nu jeex te loolu yonti bi sallallahu alayhi wa xamle na ko jëlee ko ci boroomam tabaraka wa wax na ci xadis bu wér ne waa aljanna suñ duggee aljanna yal nañ ca bokk waa safara dugg safara yal buñ ca bokk dañ leen di indil dee ne ndax xam ngeen lii mooy lan ñoom ñëpp jaar nañ ci ci loomul genn sikk sàkk lii nekk tontu ba mooy ne xam nañ ko ñu rey ko seen kanam ñu xamee ca ne ne dee moom kenn na du ko fi defati ku nekk di nga dund ci li yelloog li nga defoon wala li la yàlla baaxee tey jii nag ñu war a tàmbalee ci fi muy waxee ni wal imaanu bil qadari خيره وشره وكل ذلك قد قدره ربنا وأحصاه علمه وأن مقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه با xët ma jeex fii muy waxtaanee pas-pasi ahli sunna wal jamaa ci ndogali borom bi tabaraka wa taala nee na bokk na ci sunna si ñépp war a fas mooy nga gëm ne ndogal lu am la gëm ndogal al imaanu bil qadar gëm ndogal xayrihi ba cay aw yiw wa sharrihi ak ba cay safaan wa kullu dalika loolu lépp nag qad qaddarahu rabbuna borom bi tabaraka wa taala moo ko dogal mu yiwwa walla aywa li ca neex walla la ca naqari lépp yàllaa ko dogal wa axsaahu ilmuhu mu peegee ko it xam-xamam lépp mu ko tënk wa anna maqaadiir al umuuri bi yadihi ne it ndogali mbir yi nattukaay ya yépp mu ngi ci loxoy boram bi tabaraka wa taala wa masdaraha an qadaa'ihi lépp tukkee ci ndogali borom bi tabaraka wa nee na borom bi tabaraka wa taala tafaddala ala man moo baaxe ay xéewal ki nga xam ne moo ko topp mu yan xéewal nee na fa waffaqahu moo ko dëpp lek ak njub wa hababa imaana ilayhi mu def ci kolam bëgg ak ngëm mu yombalal ko ko it fa yassarahu lahu mu yaatal dënnam ubbil ko ak ngëm wa sharaha lahu sadrahu fahadaahu mu gindi ko wa man yahdillahu fa huwa ki yàlla gindi nag moom rekk mooy ki gindeeku wa xadala mu gàcceel man asaahu ki nga xam ne mooy wa kafara bihi mu weddi ko fa aslamahu mu jébbal ko yombalal ko it yoonam wax wa yassarahu li daalik yombalal ko loolu fa xajabahu mu yiir ko wa adallahu réeral ko wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan murshida te képp koo xam ne yàlla réeral na ko amul kenn ku ko mën a teg ci njub ku ko mën a gindi wa kullu wa kullun yantahi ila saabiqi ilmihi lépp nag day jeex di dellu ci xam-xamam bi jiitu laa maxiisa li ahadin amul kenn na ku ca mën a génn lii muy waxtaane ndogalu borom bi tabaraka wa taala mooy al imaanu bil qadar te loolu nekk lu war bokk ci fonki ngëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko jibril ana lan mooy ak ngëm dafa ne ko mooy an tu'mina billah nga gëm yàlla wa malaikatihi gëm ay malaayikam wa kutubihi gëm ay téeréem wa rusulihi gëm ay yonantaam wal yawm wal yawmil aaxir gëm bés pénc mooy wa tu'mina bil qadari xayrihi wa sharrihi danga war a gëm it ak ndogal muy la nga xam ne aw yiw la wala loo xam ne safaan la lépp ndogalu borom bi tabaaraka la lépp lu fi am rek ci ndogalu borom la amee teewaay gi ngeen fi teew ci ndogalu borom bi tabaaraka wa taala la amee wax jii may wax ci ndogalu borom bi tabaaraka wa la amee yëngatu gi ngeen yëngatu lépp ci ndogal borom bi tabaraka wa taala la amee borom bi nee na inna kulla shay'in xalaqnaahu bi qadar lépp borom bi wa taala da bind ci ndogal ci ndogal borom lay dox Taawus say wax ne dund na ba taseek ñenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñoom ñépp dañ daa wax ne kullu shay bi qadar lépp ci ndogal borom bi tabaraka wa lay amee nee na wa samiatu abdallah ibn omar ma dégg it abdullah ibn omar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu shayin bi qadar kon lépp ci ndogalu borom bi tabaraka wa lay amee lii mooy li xam ñépp ko war a gëm ñépp dañ ko war a gëm yaxya ibnu yaamur ki njëkk wax wax ju jubadi fas ci loo xam ne lu jaaduwul la ci ndogal borom bi tabaraka wa taala fële ca basra mooy ku ñu wax maabat ak juhani nee na bi loolu xewee ma àndak ak ku ñuy wax xumayd ibnu abdirahman ñu aji wala omra ñoom bi àndee nag ñu mébét ne xëy na borom bi tabaaraka wa taala danu jàppale ban tase kenn ci saxaaba yonent bi sallallahu alayhi su ko defee ñu laaj ko lii yi wax ci ndogal ak borom bi tabaaraka wa taala danoo am ab problème boo xam ne ñu ngi koy dund ci société bi nekk ñu am occasion dem fi nga xam ne saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa foofu la ne ne kon léegi xëy na ñu am occasion kenn ci ñoom su ko defee li lënt ci nun ñu gaaral lenk ñun leer lan ñu ko nee na bi ñu demee yàlla dëppale ñoog Abdullah ibnu Omar ñu tasee ak Abdullah ibnu Omar ñu tase ak moom ci jàkk ji fekk moom mu ngi dugg si jàkk ji bi mu ñëwee man ak sama waa ji mooy Yaxya ak Xumay Xumayd dañu séq Abdullah ibnu Omar kii nekk ci ndeyjooro bi kii nekk ci càmmoñ li yaxya nee na ma jàpp ni sama waa ji ma àndal di xomayd man lay bàyyee kàddu gi ma ma laaj ma laaj ibnu omar moo tax mu ne ibnu omar yaa aba abdirahman innahu qad dahara qibalana naasun yaqra'uuna alquran am na ñu feeñ de ci wet gi nekkee ci dëkk bi nekk ñoo ñu ay nit yoo xam ne dañuy jàng alquran doo ne ñoo xam ne jàng alquran wa yataxaffaruuna al ilm ñuy topp xam-xam di ko sakk wa zakara sha'ni mu tudd ay mbir yoo xam ne ci ñooñu la jëm ma ne nag wa annahum yazumuuna an an laa qadar danoo gëm ni ndogal amul wa annal na unuf ne lépp daal balaa yàllay xam nu muy demee day fekk mu am ba pare balaa yàllay xam nan lay demee day fekk mu am ba pare lii ma yëkkati tegaat ko ñooñ ci seen pas-pas yàlla avant mu koy yëkkati maanaam avant une minute xamul woon dinaa ko yëkkati waaye bi ma ko defee ba pare lay soog a xam ne ndekete Saïd kat dina yëkkati guttu teel tegaat ko loolu di pas-pas bu danger boo xam ne waxoon nañu ko fi ne ñan ñoo ko gëmoon alqadariya al ula an nufaat ñooñu nag nax saay noonu ibnu omar bi ñu ko waxee loolu ma ne leen fa ida laqitum ulaik soo leen tasewee ak ñooñu fa axbirhum ida laqayta ulaik soo tasee ñooñu fa axbirhum anni bariun minhum wa annahum buraa buraaun minni buraaun minni soo tase ñooñu xamal leen ni man de ku dañ laa ba set wecc ci ñoom ñoom it ñu dañ ñan ba set wecc ci man ne maa ngi gën ci ki nga xam ne ibnu omar moom rek lay gëñee te mooy borom bi tabaraka wa taala ñooñu ngeen di wax de kenn ci ñoom su amoon lu tollu ni oxot ci or mas na ko am lu toll noonu ci oor wal dégg lu toll ñu oxoot ci or oxoot ni mu yaatoo boobu ni guddee lu toll noonu ci or neen suñ ko amoon joxe lépp ci yoonu yàlla finance lépp ci yoonu yàlla yàlla doon ci nangul dara fekk gëmul ni ndogal borom bi tabaaraka wa taala fekk gëmul ndogal borom bi tabaaraka wa taala kon ndogal borom bi ñépp ko war a gëm Uh, Ubaada ibnu Saamit radiyallahu anhu di saxaabi bu mag bi muy bëgg a génn àdduna doomam ji nga xam ne mooy alwalid nee na bi mu gisee waajuram xam ni feebar bi sonal na ko te njortu na ne kii feebaram bii kat du ca jóg dafa ñëw ci moom ma ne ko dénk ma nga farlu ca nag tama sa ñam caf kak ak ngëm te xamoo dëgg-dëgg xam-xami sa borom xamoo sa borom dëgg-dëgg doo sa ñam caf ak ngëm te gëmoo ndogal la ca neex la cay safaan doom ji ne ko yow sama waajur nan lay xamee lii lii aw yiw ci ngënee ci ci ndogal ak li nga xam ne moo cee safaan alwalid ne ko mooy nga xam ne annama axtaaka lam yakun li yusibak lépp loo xam ne mooy na la xam ne nekkul loola waroon a dal lépp loo xam mooy na la nekkul loo xam ne waroon na laa dal wa maa asaabaka lam yakun li yoxtiyak lépp loo xam ne it dal na la xama ne nekkul lu la mën a mooy mu ne yaa bunay yow sama ndoom inni samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul man de dégg naa yonent bi sallallahu alayhi di wax ne yàlla bi mu bindee xalima ji rek dafa ne ko uktub xalima ji ci boppam ne yàlla la lay bind yenn borom bi tabaaraka taala jox ko ndigal mu bind lépp lu war a am ba fay ba fay àddina yu tukkee lépp lu war a am ba àllaaxira xalima ji bind na ko ci jour boobule ma ne yaabu na yow sama ndoom in walla wa lasta ala dalika daxalta naar soo génnee àdduna fekk nekkoo ci lii ma la wax yaa ngi ci leneen lu dul lii xamal ne safara nga jëm kon ponk la boo xam ne ñépp ku war gëm jox ko yitt jim yelloo gëm dogal nag suñ ko waxee ci ñeenti mbir la composé wu moom lañ tuddee lan maratibul maratibul qadar gëm dogal ci ñeenti mbir la composé wu soo ko xasee gëm rek gëm nga ndogal ba ca jiitu may al ñaareel ba mooy alkitaaba ñetteel ba mooy al machia ñeenteel ba mooy al xalq loolu mooy lan ba ci jiitu mooy nga gëm ne yàlla xam na lépp lépp lu am yàlla xam na ko lu amul yàlla xam na ko lépp lu mën a am yalla xam na ko lu mënul am yàlla xam na ko yàlla lépp la xam bi naa lii alim yàlla moo xam li xewoon lii xew jamono jii dara réeru ko ci la nar a xewit xam na ko li xewul li xam ne amul su amoon nu muy demee xam na ko tey jii ñoo ci saal bi su nekkuloon ci saal bi ku nekk ci noonu ci ci lan lay ne est-ce que nu xam nañ ko waa yàlla xam na konoon ci lan lay ne xam-xam boobu mat borom bi nee na ci naafiq yi law xaraju fiikum maa zaadukum illa xabaala est-ce que génnun génnun de yàlla mais yàlla wax na suñ génnoon nan lay mbir may demee suñ génnoon du leen yokk lu dul ak loraange maa xar law xaraju fiikum maa zaadukum illaa xabaala wala awdaawu xilaalakum yabguunakum alfitnata wa fiikum sammaawuna lahum lépp noo xam ne ñoom génnuñ mais yàlla suñ génnoon lan la mbir ma war a demee nettil na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi benn yàlla fi nekk mais yàlla ci boppam wax nañu ne su fi yeneen yalla nekkoon ak moom lan lay lan lay adduna biy demee أه؟ la fasadata law kana fihima alihatun illa allah la fasadata est am na amul waaye wax nañu su amoon lan lay demee yéeféer yi weddi su demee ba bés pénc dañuy mbébét di ñaan borom bi tabaraka na leen may beneen chance ñu ñëwaat ci àdduna lan la yàlla wax wa bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qabl walaw ruddu la aadu limaa nuhuu anhu est delloo na leen yàlla nee na su ma leen delloo woon sax ci àdduna dañuy delluwaat ca lañ nekkoon loolu di la xamal yàlla yaatu xam-xamam ci gàttal bi ci jiitu mooy nga xam ne xam-xamu yàlla lu ma sëkk la loo xam ne dara génnu ci ñaareel ba mooy alkitaaba mooy lépp loo xam ne war naa am ci àdduna bi xamal lépp yàlla bind na lépp lañ bind loo fi lu fi xew rek ma ci ca lawhul lu fi xew rek ma ngi ca bind gi yàlla bind ndogal yi nag dañuy wax ne ñeent la walla juróom ci façon ba ci jiitu mooy bi ñu tuddee al taqdiiru al azali al taqdiiru al azali mooy ban mooy yàlla bind gim bind mbir ya dogal ko ci asal te loolu mooy kañ bind goo kañ la amoon mooy lu jiitu ñuy bind asamaan ak suuf juróom fukki junney at borom bi nee na katabal yontu sallallahu alayhi wa sallam nee na kataba allahu maqaadira alxalaayiqi qabla an yaxluqa alsamawati wal ard bi xamsiina alf sana nee na ndogali jaam yàlla bind na ko lu jiitu muy bind asamaan suuf ci juróom fukki junney at loolu bëri de avant bind asamaan suuf juróom fukki junney at li war a xew ci asamaan suuf yëpp yàlla bind na ko boobu mooy bind ko njëkk ga boobu mooy génde ga lawhul mahfuz bu ñu wax ne ma ngi ca lawhul mahfuz mooy mbind googu ñaareel ga mooy at taqdirul umri yi loolu nit ku nekk danga koo jagoo nit ku nekk da nga koo jagoo ku ci nekk ci nit ñi bi ngay nekk sa biiru yaay yàlla bind na say ndogal lépp loo xam ne war nga koo jëfee ci àdduna yàlla bind na ko maanaam nu ñi ñépp bi nekk suñuy biiru yaay ñi tey jii ci heure bii ci waxtu ci minute bii kullee la nekk ci dasu tel loolu lépp yàlla bindoon na ko jamono jooje malaaka bi mu yónni woon moo ko taxawee sunu wërsëg lépp bind na ko moo tax nga xam ne wërsëg nit ki war na caa war na caa teey wërsëg woo xam ne nu mu mënta demee danga ca jot kenn mun la koo xañ soo koy sàkku war ngaa rafetal càkku ga fattaqullaha wa ajmilu fi talab wërsëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neen sa wërsëg soo ko doon daw ni ngay dawee dee dina dab ni lay dee di dabee munoo daw ba rëcc kenn mën a daw ba rëcc dee ba mucc munta nekk sa wërsëg it munoo daw ba rëcc danga ci jot looy dund ñaata ngay dund ci àdduna kañ nga fi kañ nga kañ kañ nga fi ñëw jógee fi kañ lépp bind nañ ko ndax ku texe nga wala ku texe di nga lépp na nañ loolu yëpp fekk yaa ngi sa biiru yaay mooy at-taqdiiru al-umri ndoom benn taqdiir mooy benn mbind boo xam ne ñoo koy dogal at mu nekk mooy kañ kañ lañ koy def laylatul qadr fiha yufraqu kullu amrin xakim ibnu omar ak ibnu abbas ak mujaahid ak xasanul basri ak ñeneen ak ci kilifa yi xamle nañ ko ne laaye bii day xamle ni lépp lu war a am ci at mi di war am ci at mi yépp yàlla ci bésub laylatul qadri da koy bind da koy dogal beneen taqdiir bi mooy ndogal gi xam ne bés bu ne moo ko jagoo bés bu ne moo ko jago sa programme suba dañ koy jagleel am mbind comme ni ñu jaglelee sa programme tey bi ak mbind ak démb ak bërki démb lépp dañ koy bind nee na yasaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shaan huwa fi shaan laay bi lu ci bër suma yëgsee damay faral di fàttaliku benn question bu ma benn waaye laajoon daf maa mas wax ne yàlla bind na asamaan ak suuf bind lépp lépp ngi dox lépp macha allah teg na ko ci yoon nee na yàlla léegi nii moom léegi ci lu muy ne ne yàlla ci lan la war a ne ma ne ko yasaluhu man fi samawati wal ard kulla yawmin huwa fi shan bés bu ne yàlla am na ci lu ne yii mooy ñeenti mbind yi am na ñu ci def juróom am ñu am na bu ñu yokk yokk tudd al bashar yi mooy bi ci wa iz axada rabbuka min bani aadama min zuhurihim zurriyatan wa ashhadum ala anfusihim laaye ba am ñu ci yokk boobu waaye boobu ñu bari ci boobu xam-xam yi du ko ci yokk ñeent yi daal ñooy gën a siiw bu ci nekk nag ca ba ko féete kaw la tibbee bu bu bés bi la ca ne ma ngi ca bu bin binoo ca laylatul qadr bu laylatul qadri ba lan lan bind nii moom moom ngay def ci at mi loolu bi nga nekk sa biir yaay bindoon nañ ko ku ci nekk nekk ci bi nekk ci biir yaay li nga ko bindal lépp soo demee ca lawhul mahfuz ma ngi fi lawhul lépp dese boobu mooy ñaareel ba koy nekkoon yàlla xam na li xew lépp te bind na ko beneen bi mooy ne lépp lu fi xew ci coobareem lay amee lépp lu fi xew ci coobaram la fi amee fii doo nekk ci nguur ak yàlla bokkañ ci mat ak yàlla nag mooy ak nguuram kenn du ca def lum sóobul kenn du ca def lum sóobul wa rabbuka ko maa yashaa'u wa yaxtaar yonent sallallahu alayhi wa yàlla mooy bind lu ko soob di tànn lu ko soobit yonent sallallahu alayhi wa sallam doomi aadama yi ñu ngi diggante ñaari baaraam ci baaraam yi yoon borom bi tabaraka moo koy wëlbati nu mu ko soobee nu mu ko soobee ba ca mujj mooy alxalq mooy yàlla bi mu xamee lépp bind lépp lu fi xew lu fi xew it nekk luy xew ci coobareem war ngaa yokk ni li fi xew lépp moo ko bind yàlla lépp lu fi xew moo ko moo ko bind wallahu xalaqakum wa ma yàlla moo bind suñu jëmm bind li ñuy jëfee suñ jëfee suñu suñ jëmm yépp yàllaa ko bind yén salaa sallam allahu yasnau kulla saaniin wa sanaata képp koo xam ne yaa ngi liggéey rek jëf xamal ni yàllaa la bind la ngay jëf yàlla moo ko bind lii mooy ñeenti mbir yi nga xam ne ngir gëm gee gëm ndogal mat faw ñu tase al ilmu mooy xam gi alkitaab mbind gi almachia coobare gi alxalq mbind gi euh, ñaare waaw mooy bind rek wala fa moom dafay ñaari kii lay wax mu ngoog euh, li nga xam nag nit ki war na koo bàyyi xel su ñëwee ci buntab xadar soo ñëwee ci buntab xadar buntab ndogal bokk li nga war a bàyyi xel mooy bul xaabaabal ci mbóoti jëfi yàlla bul xaabaabal ci mbóoti jëfi yàlla yàlla lu tax mu defee nii lu tax dañuy wax ne soo ñëwee ci xëy bi yaadi mbir yi faddu te jël baatab kayf nang la demee soo ñëwee ci xadar ndogal baatab lima lu tax sëñ bi xaaral lu tax yàlla defee lu yàlla defee nii bul xaabaabal ci mbóot yooyu yàlla lu mu def rek ci xam-xam bu ma sëkk ko defee ci xarañte bu ma sëkk ko defee it lu def rek nit ki nag xam bariwul bëriwul wa maa utiitu min al ilmi illa qalila sa xam-xam bëriwul sa xel mi dafa faible nit xelam amul kàttan yàlla nee na wa xuliqa al insaanu daifan yàlla dafa bind nit mu nekk ku lompoñ ku faible te xel ci nit la bokk ci nit la bokk koo xam ne xam-xamam yaatuwul xelam mi dañ koo limité soriwut su bëggee xaabaabal ci mbóoti jëf yàlla day réer parce que dafa sut xam-xamam dafa sutam xelam moo tax yàlla ne laa yusalu amma yafaal c'est parce que lu ci nekk teg na ko ci ma goo xam ne ci xarañte goo xam ne sut na suñu xam-xam yow nit ak nit ci boppam nit ak nit matériel yii nekk suñ kanam maam lu ci ëpp li ci ëpp suñu laajoon ñi ci saal bi ne lii la moo tax ki ko doon defar defaree ko nii lii la moo tax mu defar lii la moo tax mu utiliser eh, nangam la moo tax mu jaarale ko fii ñu bëri ci nu xamul est-ce que tax na nga jàmm ci liggéeyam bi ne jaaduwul ne jaadul yoon déedéet da nga ko jox cër yàlla nag ay mbiram yi mu dogal li muy doxal lu ci bëri xamal noonu la demee sa xam-xam yëgu fa nit ak nit xoolal ma alxadir ak Moussa Moussa fi mu yegg ci dayoo Moussa ni koy boole ci ulul azmi na rusul ne kii bokk na ci juróomi yónnante yi gën wala juróomi nit yi gën ci yàlla bind waxumal juróom yi soo demee ci yenn boom xam-xam ngay fekk ñuy wax ne Moussa gannaaw yonent bi ak Ibrahim moo ci tegu xool pour nga xam rek fi dayo bi mu yegg Moussa alayhi ànd ak alxadir bi nga xam ne Moussa moo ko sut garaat fuuf raw ko xadir di def loo xam ne Moussa xamul la moo tax xadir di koy def xamul luy mbóot li ni te muy mbindeef ni moom bu dee nit ak nit la ak Moussa fi mu yegg moo réere loolu kon ci mbiri borom bi tabaaraka wa taala ba lan lañ ci war kon point bu njëkk bi mooy bul xaabaabal bul xaabaabal ci mbóoti jëf yàlla tabaaraka wa ñaareel ba nit ki yenn saa mën na laa wax ne aduna bi suñ ko gisee maam sooy xool ci aduna da ngay gis ne lu bari li fi xew yàlla bëggu ko lu bari li fi xew yàlla yàlla bëggu ko gaa yi naan sàngara li ñu def yàlla bëgg na ko col tegu col tegu bon gi eh, ñenn ñi sol est-ce que yàlla bëgg na ko musique bi nekk ci dëkk bi yàlla bëgg na ko rey gi nekk ci dëkk bi yàlla bëgg na ko maa mbir yu bëree bëri ñu ngi xew ci àdduna bi te yàlla bëggu question bi nag nee na mooy nan la yàlla soobee lu bëggul lan la yàlla soobee lu bëgg loolu lépp ci coobare yàlla la amee loolu lépp ci coobare yàlla la amee comprend ngeen question bi mooy ne li fi xew lépp yàllaa ko soob te li xew lu ci bëri neexul yàlla maam nan lay soobee lu ko lu mu bëggul loolu li la koy yombalal nga nga xam benn règle mooy lu ñu tuddee li muraad li zaatihi ak muraad li xayrihi yenn saa yi yàlla day bëgg mbir ndax jëmmam jëmmi mbir mi la bëgg yenn yi day bëgg mbir am nekku ni jëmma ji bëgg waaye la cay juddoo ca njariñ moo tax yàlla bëgg loolu am loolu mooy lan bépp bàkkaar bu fi am bépp bàkkaar bu fi am bépp ñaawteef fi am bépp safaan boo xam ne am na ci àdduna xamal ne yàlla li tax mu bind ko mooy ne la cay juddoo ca njariñ moo ëpp loraangeeg mbir moomu moo ëpp loraangeeg mbir moomu yàlla du bind loo xam ne ayu kese la mooy acharul mahd yàlla du ko bind wa charru laysa ilayka yi yonti bee ko waxal boppam yàlla du bind loo xam ne ayu kese la lépp lu bind rek xamal na xamal ni la ca nekk ca njariñ moo ëpp pour nga wàccee mu gën comprendre ci mbir yi nga xam ne nun ci ñun ñu bari ñoo koy dund wala ñoo koy dégg nit ki doomam day gaañu ci tànk day gaañu ci ab tànk muy jël doomam teg ko ci otom essance am lay rey jël na ay jël na temps am yóbbu ko ba ca docteur ba téel boppam doom ji docteur bii dëgg tànk bi loolu soo xoolee est-ce que moom lii xew noonu ci jëmm dagg tànk bi ci boppam bëggal na ko doomam waaye lan moo tax mu nangu ko c'est parce que la ca juddoo ca njariñ moo tax mu nangu loolu loolu am la moo ca juddoo ca njariñ xam na ni tànk bi suñ ko dëggul feebar bi mën naa gën a law ba doomam maanaam doomam ñàkk tànk bi kese moo ko gënal doom ji faatu doom ji faatu kon mbir mi bëgg na mu am mais jëmmay mbir mi taxul mu bëgg mbir mi am waaye la cay juddoo cee njariñ loolu moo tax mu xër ci mbir mi am ba cay fay xaalis sax kay soo muy mu fay docteur ba xaalis loolu mooy ne mbiri àdduna nag gis nga yàlla yàlla daa bëgg ñiy est-ce que tuub mën naa am kenn gàttañlu mën naa su kenn gàttañluwut yàlla dañ gis kuy tuub kon faw am ñu gàttañlu ndax yenn njariñ boo xam ne da cay da cay juddoo yàlla daa bëgg ñuy jihaad fi sabilillah su kenn weddiwul jihaad dana am koo moo tax bokk na ci ñu yaatal ci bunt bi ibnul qayim ci miftaahu daari saada euh, shifaul alil su ma juumul ak euh, sawaay xol mursala danay foofu danay waxal ne mooy yàlla yi nga gis ba ci iblis yàlla bind gi ko bind yan njariñ moo ci ne yan moo ci ne ba juróom sax dana koy waxal ku sa mbind xaw a dëgër tuuti mën nga faa dellu mën nga faa dellu kon règle boobu jàpp ko dafa am loon tuddee muraad li zaatihi ak muraadun li gayrihi règle day wax ne ne maasi yi laa tuhab laa yu laa yuhibbuhu allah azza wa jalla li waaye day wax ne muraadatun li gayriha laa li zaatiha yàlla daa bëgg ak amam daa soob ak amam ndax la cay juddoo la bëgg la cay juddoo ca njariñ la bëgg te loolu ñoo not beneen bi ñu xam ne nit ki am na coobare nit ki daa am coobare boppam maanaam li ngay def ci sa coobare nga ko defee teewaay gi ngeen teew fii nii seen coobare ngeen ko defee waaye nag ñu xam ne it coobare nit ki day topp coobare borom bi tabaaraka wa maa illa yasha allah am nga coobare waaye sa coobare day topp coobare borom bi mbir yi ngay def sa jëf jëf yi ngay def sa julli gi sa woor gi sa joxe asaka ji sa leneen ak leneen li ngay def lépp say jëf la say jëf la waaye yow ak say jëf yàlla moo leen yàlla moo leen bind yàlla moo leen bind nit ku ne day ràññee diggante yëngal gi mu yëngal loxo man sama yëngal li ma yëngal guttu bi nii yëngal gi ma koy yëngal yéen ñëpp xam ngeen ne bokkul ak sama xol bi yëngatu gi muy yëngatu gii maa ko defal sama bopp ci sama coobare waaye géey est-ce que am naa mën naa ci dara nekku sama coobare mooy dafa am yoo xam ne xarakaat iradiya ak laa iradiya sa jëf nag yaa ko defal sa bopp kenn forcé wu yaa ko defal yaa ko defal sa bopp ñépp xam nun ne yëngal bii nit ki yëngal loxoom mu ngi wér comme yëngal bii ma yënga sama loxo ak yëngal bi kii euh, nu nga ko tuddee sax kii lox di yëngal loxam bokkul bokkul say jëf nag bi nga koy def kenn forcé wu la ko yaa ko defal sa bopp kon na nga gàddu responsabilité bi say jëf dañ lay wax ne say jëf yàlla moo ko bind axàkk yàlla moo ko bind yàlla li muy bind looy beneen règle la ci xadar yàlla dañuy wax ne yaxluqu bi waasita wa laa waasita yàlla day bind dara du ko jaarale fenn moo koy bind direct bindal ko boppam comme ni bind aadam moo ko bind moo ko bindee loxoom jaarale ko fenn ne ne na am naam yaay moo bind loxoom yàlla moo bind aljanna yi loxo ci loxoom dafa mbir yoo xam yàlla ko bind ki loxoom waaye yi ëpp ci mbir yi yàllaa ko bind waaye dafa am fu mu ko jaarale nu yàllaa ñu bind waaye est-ce moo nu bind ki loxoom direct déedéet daf noo jaar daf noo jaarle ci suñu suñu waajur dafa jaar suñu waajur gàncax gii nekk suñ kanam garab yi nekk suñ kanam yàlla moo ko bind mais da koo jaarle ci suuf seeg jaarle ko ci eh, ngelaw lii naaw jaarle ko ci ndox meeg jaarle ko ci eh, naaj wi dafa am ci mbir yu ko jaarale suñu jëfit yàllaa ko bind waaye ci ñan ko jaarale ci la ko jaarale yàllaa ko bind waaye ci nun la ko ci la ko jaarale lan lay gën a yombalal mbir mi dafa dañuy wax ne dañuy wax ne lii xew lépp lépp loo xam nit ki def na ko rek xam ne am na ñetti mbir yu ca tase am na ñetti mbir yu ca tase iraada jaazima qudra taama zawalul mawaani mooy lan lépp loo xam ne am na lépp loo xam ne am na xamal ne ki ko def am na coobare goo xam ne ci la ko defee maam maanaam lii dama ko yëkkati parce que man maa ko dama ko bëgg yëkkati dama am coobare yëkkati ko foofu bëgg-bëgg gi nekk fi su fekkentee ne groupe bi ma ngi sama kanam bëgguma koo yëkkati est-ce que dina dina fi jóge du du jóg kon foofu coobare gi nekk fi coobare gannaaw bi mu fi nekkee faw kàttan li nekk fi nit ki mën naa bëgg a yëkkati aw xeer bëgg a bëgg génn fi waaye kàttan li kàttan li nekku fi kàttan li nekk kon bëgg bëgg gi nekk fi kàttan li nekk fi beneen bi mooy la koy teree am jóge fi nit ki mën naa bëgg a yëkkati chaise bi am na kàttanal yëkkati chaise bi waaye am ponkal toog na ci ba mënu ko yëkkati kon bëgg-bëgg bee fi kàttan leen fi waaye dafa am loo xam ne mooy maane mooy lu moo ko tere am te nit ki nag coobareem ak kàttan li muy defee jëfam ak li koy teree dàqu lépp ci mbiri borom bi tabaaraka walla yàllaa koy def kàttan li ngay defee kan moo la ko jox yàllaa la ko yàllaa la ko jox coobare gi ci yàlla la kon lépp ci fan lay dellu ci yàlla lay mujjee ci yàlla lay mujjee dellu loolu ñu bàyyi ko xel beneen bi borom téere bi nee na ku gindeeku ci mbaaxu yàlla nga gindeekoo yàlla mooy baaxee ku ko soob gindi ko teg ko ci yoon tëppale kooku ak njub jubal ko te loolu noonu la amee am na ñeenti mbir yoo xam ne nit ki war na koo fas xam ko ci ak njub am ñeenti di mu war a fas ci réer ba jiitu mooy nga xam ne ku fi jub yàllaa la jubal ku fi jub yàllaa la jubal ci mbaaxu yàlla nga jubee ngëneel goo xam ne yàllaa ko yàllaa ko baaxee ku yàllaa jubal mooy benn bi mooy alhidaayatu min ak njub ci yàlla lay jóge ñaareel ba mooy ne ak njub ngëneel la gu yàlla baaxee ku mu soob ak njub ngëneel la gu yàllay baaxee ku mu bu njëkk moom bi njëkk mooy ak njub yàllaa koy ba yàllaa koy ci yàlla lay jóge ñaareel ba mooy yàllaa koy baaxee ku mu soob te yàlla toujours ak njub ki mu koy jox mooy ki ko yelloo ki mu koy jox mooy mooy ki nga xam ne ko yelloo mooy troisième bi mooy dafay dellu ci xam-xam bu ma sëkk ak xarañteem gu ma sëkk loolu li la koy leer la mooy ne képp koo xam ne yàlla def na ci njub yàlla la ko baaxee te yàlla toujours li muy baaxee jaam yi day xool béréb bu ko yelloo mu jox leen ko est-ce que kenn ci noonu dana jël chaîne boo xam ne chaîne or la cher lool jëndee ko ca marché ba ñëw ba ci koñ bi xool fas wa gën a fas wi nekk ci bopp koñ bi mu takkal ko dem yoonam nit dañ def loolu yëlloowu ko lu nekk day xool ki ko yelloo mu jox ko gindeeku gi yàlla day xool koo xam ne yelloo na ko mu ko koo xam ne yelloowu du ko gindi koo xam ne yelloowu ko du ko gindi moo tax bi na yéeféer yi waxee ahaulaay ledina manna allaahu ahaulaay manna allaahu alayhim min baynina lan la yàlla wax alaysa allaahu bi alama bi shakirin yàlla moo gën a xam ñi koy sant su leen baaxee xéewal yooyu de bu ci mujj mooy nga xam ne njub yenn saa yàlla moo koy baaxee nit ki ci loo xam defu dara moom yàlla daay jékki-jékki rek baaxee ko njub daal day jékki-jékki baaxee la njub mooy alhidaaya liptidaaya lañ koy tuddee alhidaaya liptidaaya mooy yàlla day jékki-jékki baaxee la ak njub loolu yàllaa koy koy jàlle ku ko soob da ngay jékki nit koo xam ne ab yéeféer la day yeew rek tuub yàllaa ko ko baaxee wala koo xam ne ma ngi ci bidaa mu jékki-jékki rek gindeeku dugg ci sunna yàllaa ko ko baaxee noonu am na beneen hidaaya boo xam ne gindeeku goo xam ne nit ki day def yàlla fayee ko ko day def lu baax yàlla fayee fayee ko njub googu walla dina te daw zaadahum huda doo jub ba pare yàlla fayee leen njub goo xam da cay da cay tegu foofu ngay gisee njuumte li nga xam ne yenn saa nit ñi danga koy laaj yenn saa da ngay gis kuy laaj ne gannaaw bi ñu duggee ci islaam nekk ay jullit maanaam lan mooy mbuut ak nuy digal eh, nuy ja nuy baamtu toujours ihdina siraatal mustaqim nu koy jub nun moom day wax ne mooy yal nañu yàlla gindi ban tegu ci siraatal mustaqim moom jàpp na ni jamono jooju moom tegoon siraatal mustaqim léegi soxlaatul ñaan googu kon la moo tax yàlla diñu digal ni baamtu kàddu googu le toujours kooku daa jël hidaaya li tidaaye fàtte ñaareelu hidaaya gi ñaareelu gindeeku gi dafa am lu ñuy wax ne al ila siraatil mustaqim al hidaaya fi siraatil mustaqim ñaar la al hidaaya ila siraatil mustaqim mooy yàlla jubal la ba nga gis yoon wi tegu ci bi nga tegee ci yoon wi pare dangaa soxla war al hidaaya fi siraatil mustaqim ak gën gindeeku ci yoon wi nga nekk di dem fii gépp jaamu yàlla goo fi def rek ci ndigal ci tawfiq boromi tabaaraka wa taala nga ko nga ko defee beneen bi mooy boobu ci réer la jëm nga gëm ni yàlla balaa nga cay xaabaabal nga gëm ni yàlla dafa maandu te yàlla du tooñ kenn yàlla daa maandu te du tooñ te du tooñ kenn loolu danga ko war a teewlu sooy sooy wax ci réeral gi yàlla yi réeral yenn jaam yi leneen li nga war a teewlu it mooy nga am ak yar ak sa borom tabaaraka wa taala yàlla du tooñ xamal lu def noonu la xamal def noonu la comprendre roo ko nekku ne obligatoire da nga ko war a xam nu mu demee li waxoon ci gindeeku rek la ñuy wax ci réer ñu xam ne ku réer ci loxo yàlla nga réer yàlla mooy réer ku ko soob yàlla mooy réere ku ko soob képp ku réer it nee woon képp ku njub kenn képp ku jub ci ngëneelu borom bi tabaaraka wa taala nga jubee waaye képp ku réer ci maanug borom bi tabaraka wa taala nga réeree la mooy ne yàlla daa maanu ci mbir yi mooy ak jubati ak mbugal la mbul googu nag li ko waral yaa ko teg sa bopp ak jubati ak mbugal la te mbugal googu li ko waral yaa ko teg sa bopp bi nga jubadee ba pare ñu war laa mbugal tegam mbugal ku yelloo mbugal ci maandu la bokk ki xam daa yelloo mbugal nga bugal ko loolu kenn est-ce que dana wax ne mandoo ci mando la bokk kii ñu ko mbugalee réer li tax ñu mbugalee réer ko réer moo réeral moo ko def kon kenn du wax ni kenn mandoo ci mbiram ak ak njub ak ak ak ak njub ngëneelu borom yi tabaaraka wa te xaj xaj nit ki loo xam ne yaa ko moom kenn du tuddee tooñ maa yor sama xaalis romb ci mbedd mi koy yelwaan mu ñaan ma mayu ko dama koo tooñ maa ko maa moom di yàlla moo moomam njub moo koy maye mayu la ko nga ne dalaa tooñ lu ma tooñe tooñu la mooy kon xañ gim ko xañ loo xam ne muumu ko mbiram yàlla la yàlla tooñu ko ci loolu tooñu ko ci loolu moom moo tooñ boppam ñu mu tooñee boppam ba yelloo mbugal ma nit ki yàlla da koo bind yàlla da koo bind moo ñaale koog mbaax kullu mawludin yuladu alal fitra bi mu ko moo ñaaleeg mbaax mu may kom xel mu muy ràññee lu baax ak lu bon nee na ko soo amulam xel teggi naa la du ma la togg togg jëf nekkutoo mu kàllaf sam xel saa yu fi jógee toppeetuma la dara bi nga nekkee xale sam xel ñorut toppeewuma la dara demal ba sam xel mat ma commencé toppee dara gis nga deuxième étape bi yàlla mooñaal na ko mu baax may ko xel bu muy ràññee nii ñi gën ci doomi aadama yi ngir ñu won ko yoonam njub ku ci nekk koo xam ne yónnante bi li mu woote yëg suuti yow ma ne teggi naa la ko ñi may waxal mooy ñi nga xam ne liñ li woote jot nañ ci mu ngi nii leer na nañ ñi dàq leeral laa yónni ci yéen pour ñu leeralal yéen yoon wi gannaaw bi ma leen mayee xel moo leen xamee lii lu baax la lii lu loolu lépp am nag yoon wee ngi leer nañ xel mooy ràññee lu baax la lu bon yàlla may na la ko nga ñëw tànnal su bopp lu bon ba pare ne yàlla tooñ lu mu la tooñee tooñu la. wa amma samuudu fa hadayna fa hadaynaahum fastahabul ama alal huda yàlla nee na won naa leen yoonu ak njub won leen yoonu safaan ñoom ñu préféré yoonu safaan kon ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp kon nit tegu ci weneen yoon wu baaxul yaa tooñ sa bopp moo tax laay bi wax ne wa qiila alhamdulillahi rabbil alamin ne jaami su ñu la attee pare ñuy sant borom bi tabaraka wa taala am na ci boobu xam-xam ñuy wax ni ne waqiila lil umum mooy yàlla la moo tax mu utilise la ñu ne c'est parce que ni muy jullit ñi muy yéeféer yi muy waa aljana muy waa safar ñëppay mànkoo nees alhamdulillahi rabbil alamin yàlla mii dëgg mooy ki maandu nees yàlla attee ñëpp di moom safara la yelloo de mais day gis si maandu gi yàlla loo xam ne day xam ni kii dëgg mooy yelloo ak cant kon tooñ amu fi tooñ moom sa euh, bokku beneen bi mooy li yelloo ni kii nga xam dafa réer tegu ci weneen yoon yàlla tooñu li nga koy xamal mooy laay bi mu tudd sànq dafa yelloo wut ak njub moo tax yàlla jubulu ko li yelloo mooy ak réer imagine li yàlla wax mooy aay bi mu tudd sànq wala ruddu la aadu li maa nuhu anhu koo xam ne dem na ba teg bëtam safara dem na ba ne jàkk xam ne lépp dëgg la génn na àdduna du génn àdduna ni mu jafee ci yéeféer mu jaar bàmmeel dem àllaaxira taxaw ci taxawaay yu métti yooyu yëpp dem ba teg bëtam ci safara ba pare yàlla neen ànd loolu lépp fi mu jaar yëpp su ma ko delluwaatoon day delluwaat ci lu bon kooku yelloo na nu jubal ko yelloo ko moo tax bi ko yàlla bàyyee bu nekk bi yéeféer loolu rek la yelloo moo tax yàlla bàyyee ko noonu moo tax képp koo xam ne yàlla tegu ko ci njub rek xama ne loolu la yelloo loolu la yelloo su yelloo woon safaan yàlla te teg ko ci njub loolu ay ay point la yu jëm ci euh, ak jub ak ak réer ak euh, ndogal borom bi tabaaraka wa xam naa ndogal borom bi nag moom ah ngeen ngeen ñu yem foofu rek après en daal. mu ci xaabaabal loo xam ne wax ci loo xam ne euh, du noonu ndaxte daa danger moo tax bor yéen sallallahu alayhi wa sallam idaa dukira al qadaru fa amsiku bu leen ci xaabaabal ci anam bu jaadu aha nee na wànnal imaana wànnal imaana ak ngëm xawlun wax la bil lisaan joo xam ne danga koy defee sa làmmiñ wa ixlaasun bil qalb ak cellal gooy defee sa xol wa amalun bi jawaare ak jëf jooy defee sa cër yaziidu bi taati day yokk ci jaamu yàlla soo too jaamu yàlla mu yokk wa yanqusu bil maasiya soo mooy yàlla mu wàññeeku naxsan an xaqaayiqil kamaali wàññeeku goo xam ne day jëm ca dëgg-dëgg yi mat waaye waxun goo xam ne day mabbal ngëm ga yépp nee na wala qawla illaa bi amal jëf kenn du ko nangu su àndugul ak ko nangu su àndugul ak jëf wax kese doyut foofu nga jëf wala qawla wala amala illaa bi niyya waxit kese ak jëf doyul su àndugul ak yéene bi yàlla euh, bëgg wala xawla wala amala wala niyata illa bi muwaafaqa si sunna jëf du tekki wax du tekki dara jëfit it yàlla amu ca soxla yéene it du jariñ boroom su fekkentee ni loolu lépp tegul ci sunna yont bi sallallahu alayhi wa al imaanu qawlun wa amal nee wax kii euh, ak ngëm du wax loo xam ne dang koy wax rek mu yem ci du loo xam ne da nga koy jëf day wax ne jëf kese la wala loo xam ne ci xol bar lay nekk déedéet ci ñett yëpp la composé wu Ashafii nee na kaana al ijmaau min as-sahaaba sahaaba yëpp dëppoonuñ ci ne wa taabiin ak taabiin sax kay ci ñi nga xam ne dund na ba fekkee tas ak ñoom min baadihim mimman adraknaahum anna al imaana qawlun wa amalun wa niyya ne ak ngëm de du wax kese loo wax sa làmmiñ ne doy na nekkul it loo xam ne jëf rek la nekkul it lu composé wu ci ñaar yooyu le génnee yéene nee na benn ci yooyu du doy fekk ànd ak yenn ñaari morom ya lim la bëgg waxal mooy ne ngëm suñ ko waxee al iman danga koy fas sa xol sa xol moom da ciy bokk mooy cosaan sax li nga fas sa xol nga wax ko ci saw làmmiñ jaamu yàlla sa làmmiñ li ngay fas sa xol di wax sa làmmiñ muy feeñ ci say cër feeñ ci say cër loolu la boom xam-xam yépp nekkoon ci mag ñu baax ñi Buxaari day wax ne moom tase naag ñu ëpp junney sëriñ sëriñ yoo xam ne dëkk yi nekk sax bokkul ku nekk ci dëkkam waaye ñoom ñépp ñoo dëppoo ci ne ak ngëm daa nekk loo xam ne day nekk ci xol di ne di feeñ ci làmmiñ di feeñ ci cër yi ci bit di yokk ak wàññeeku nag di yokk ak wàññeeku ne gëm naa ngëm génne sama xol te wax naa ko ci sama làmmiñ waaye jëf ji jaru ko njuumte gën ko rëy loolu ab julli du ko def ndaxte boroom xam-xam yi dëppoo nuñ ci ne bokk ñi toxal dëppoo google Ashaafi'i ci la bokk Isaaq ibnu Rahawayh ci la bokk Al-Humaydi ci la bokk Al-Muzani ci la bokk Al-Ajuri ci la bokk Ibnu Batta ci la bokk ak keneen ak keneen ñoom ñëpp di toxal ne ngëm goo xam ne da koy woote woote du ànd ak jëf ngëm googu wérut ngëm googu wérul te sax li ngay woote woo ne ma ngi ci biir su doon dëgg dana feeñ ci biti ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xol mooy loo xam ne su xasee baax yaram woo ci yaram yëpp baax su xasee yàqu it yaram yëpp yàqu iza salahat salaha al jasadu kulluhu wa iza fasadat fasada al jasadu kulluhu beneen ba bi wax mooy ne ngëm day yokk ko wàññeeku te loolu moom yaakaar naa ne ñëpp ko ngëm day yokk ak ak ñu bëri ci noonu lan doon yëg ca koor ga soo comparé tey jii de soo moytu ñu ne sore na lool bi ñeggee ci fukk yu mujj yi ci koor ga ngëm gi ngeen nekkoon ak moom ngeen nekkal ba léegi no ñoo xam ne xëy na yëg ñoo gën a yëg waaye de jàppale ñu ëpp ci ñi moom mooy ne danoo wàccaat danoo wàccaat. loolu mooy ngëm day yéeg ak a wàcc day yéeg ak a wàcc firnde yi bëri na lool gaa yi bind ci ay téere mais ci li di ñëw rek mooy ñu xam lan mooy yokk ak ngëm ak lan mooy wàññi ak ngëm li nga xam ne moo yokk ay ak ngëm mooy jaamu yàlla mooy yokk ak ngëm jaamu yàlla attaa jaamu yàlla su ko waxee ñaari mbir la fi'lul xasanaat def ay yiw di def lu baax ak tarku aati sayyi'aati ihtisaaban ak bàyyi ñaawteef jaamoo ko yàlla fi'lul xasanaat def lu baax mooy ngay def li yàlla digal ngay def farata yi di taxawee sunna yi loo ci def rek sa ngëm da yokk sa ngëm a nga yokk sa na ñi mu yokkoo ci loolu am na mbir yoo xam ne cay joué ba ca jiitu mooy diñ tuddee xusnul xasana mooy njëkk ak jëf ju baax ji ngay def ku la gën a jekk jëf rek moo la gën a marqué point jëf ju jekk nag ñaari mbir yenn cay xool mooy cell ga cellal ga ak topp ga mooy ku la gën a sell jëf moo la gën a ëppi point ku la gën a tënku ci sunna yonti sallallahu alayhi wa moo gën a baax yi jëf gën la ëppi point beneen ba mooy li tuddee jinsul xasana xeet wi ci boppam jaamu yàlla yi ay grade la ba ca gën a koowee soo ko defee mooy ëpp ay point bi ko yées point yi ngay marke ci julli gi nga julli farata doo ko am ci naafila gi ngay def point yi nga am ci julli farata doo ko am ci point naafila yi nga xam ne moom nga koy def beneen bi mooy kasratul xasanaat xasanaat mooy point yi ngay amee ci ñetti yool ñetti jaamu yàlla yooy def doo ko amee ci ñaar yi nga xam ne ñaari yi nga xam def nga ko beneen bi mooy quwatu daai ila al maasiya mooy ñaawteef yi bi nga koy bàyyi bi nga koy bàyyi waaw balaa ma ñëw ci ñaawteef nu ñëw ci beneen point mooy bàyyi ñaaw ñaawteef bàyyi ñaawteef du jël ñetti yooyu mooy yi mooy xusnul xasana mooy njëkk ak jaamu yàlla gi te loolu nee naa leen ixlaas bi ak mu taabaan la xool sellal gi ak topp gi ci su tënku yoon sallallahu alayhi ñaareel ba mooy jins bi jaamu yàlla gën a gën a gën a gën a foor fa borom bi tabaaraka wa taala moo la ëpp point bere bi mooy limba bu la gën a ku la gën a ëpp jaami yàlla gën laa bëri lay point neenun li yokk ngëm mooy def lu baax def lu baax wala boog jaamu yàlla jaamu yàlla ba ci jiitu mooy nga def lu baax ñaareel mooy nga bàyyi ñaaw ñaawteef bàyyi ñaawteef lan moo tax ñu yokk ixtisaaban mooy nekkul ne bàyyi gu nekk moo lay marqué ay point fintul ni jamono jii nu nekkee ci saal bi yal na yàlla sàmm sàmbalee jéggalu ci kàddu yi jamono ji njaaluwul wallaahi alhamdu naanu sàngar jëwul deful na lu bëri ci ñaawteef est-ce que ñuy bindal ku deful loolu lépp maa ngay toog instant bi ne ah diw heure bi de kon njaalul kon bindoon yool ku njaalul naan sàngar dañ ko bind yool ku njaalul sàngar noonu lay demee déedéet bàyyi lu bon balaa nga ci amee yool day fekk ñaari mbir tase ci mooy li ñu tuddee al xasdu ak al li ñu tuddee al ixlaas mooy dangaa bàyyi lu bon parce que yaa ko jublu bàyyi lu bon léegi nii mën nga ko sàngar seegi nii mën nga koo naan waaye yaa ko bàyyi sa coobaree bopp loo xam ne mënoo ci dara moom taxu taxuñu wax loo xam ne mu ngi nii mën nga ci dara waaye yaa ko bàyyi sa bopp loolu lañ ci jublu mooy benn bi alxas mooy nga jublu ko ñaareel ba mooy ne yaa ko bàyyi sa bopp ci sa coobare waaye na fekk yàllaa tax nga bàyyi ko na fekk yàllaa tax nga bàyyi ko kii nii ñaawteef ak njaaloo jàppandi ci moom am na possibilité def ko waaye da koo bàyyi ndaxte daa ragal sida day amam yoon yàlla taxum bàyyi kon jublu géen fi waaye cellal ga moo fi moo fi nekkul faw ñaar yooyu tase al al qasdu wal wal bàyyi gi ngay bàyyi mbir nag mbir ya day wuute li lay woo ca bàkkaar ba ba tax nga bàyyi ko nu mu gën a amee doole yool ba gën a am doole yool ba gën a am doole moo tax kii nga xam ne yoon salaatu na ko ci xadis ci ñi nga xam ne dañ leen di keral bés penc ci kerug borom bi tabaraka wa la mooy waajoo xam ne daat humratun zaatu mansubin wa jamaal maanaam nekku ku simple boromab dayo la boromab dayo la amab taar ana loolu lépp mu xalaat yàlla bàyyi ko te yàlla ak tax kooku doo ko bokk koo xam ne maanaam amul dayoo amul taar amul daanaka daanaka yow da ngaa bon rek moo tax nga dugg ci moo ku bon rek ku bon rek tax nit ki dugg ci bokkul loolu mooy liy yokk ak ngëm lan mooy wàññi ak ngëm liy wàññi ak ngëm moom it mën nga wax ñaar la def lu araam ak bàyyi ak jaamu yàlla mooy wàññi ngëm def lu araam day wàññi ngëm loolu moom lu leer la kii daa def ñaawteef moom ngëm a wàññeeku na loolu it li ñu waxoon ci bàkk ci yool ba lay wax dafa am lu ñu tuddee jinsul maasiya mooy xeet wa bakkaar bi ñaawteef bi nu mu gën a bonee li muy wàññee si say point gën a bëri ku def loo xam ne kabira la est-ce que comparé ku def saxiira du benn bakkaar bu rëy bu ndaw bokkul beneen bi mooy kasratul maasi bakkaar nu mu gën a bëree gën a wàññi say point ñaareel ba mooy quwatu daai ila al maasiya wa daafuhu li lay woo ci bakkaar ba kattan la muy am day joué ci point yi muy wàññi koo xam ne neenu la daa bàyyi bakkaar fekko la ko cay woo amoon na kàttan lool mu for lool mu bàyyi ko yoolam day rëy waaye ki nga xam ni daa def bàkkaar te fekk la ko cay woo lu feebal la li muy wàññi ci point day bëri moom la yónni sallallahu alayhi wasallam tudd ci xadis ne bokk na ci ñi nga xam ne am na ñett ñoo xam ne su ñëwee bés penc laa yukallimuhumullah yàlla du wax ak ñoom wax wax ju wax ju neex yowmal qiyaama wala yanzuru ilayhim du leen xool bëtëb yërmande du leen sellal laabal déedéet wala yuzakkihim wala hum azabun alim te ma leen tëg koo mbugal mbugal mu métti ñu fa tudd ñépp li leen woo di woo ci bàkkaar lu faible la maanaam ci yoon suñ bayoon xel tuuti rek waru dañ cey mujj dañ cey mucc kam ci jiital mooy neena na cheikhun zanin kem dem ba jëm mag dem nga ba jëm mag sa xel mat nga gis ci àdduna lu war tax nga dellu ci yàlla nga wëlbati ko amul looy def lu dul njaaloo kooku moom yontu sallallahu alayhi wasallam su ñëwee yoomal du ko xool bët bi ko du ko du wax moom wax la ko la ko tëkkoo mooy na wa malikun jox la nguur ba pare nga wëlbati ko wax lu dëgg yaay nguur gi sa loxo la nekk pouvoir ba ngi sa loxo ba pare ngay nekk fii di wax loo xam du dëgg beneen mooy waa ilun mustakbir nga nekk faqiir amoo dara ba pare di rëy rëy faqiir nu gars yi li nga ko miskin miskin lu siin ak kaaf geeg nun ci arab lu muy tekki tey dellu ci maanaam dal da war dal maanaam yow warul rëy rëylu yow amoo dara ba di rëy rëylu xam loolu daa ñaaw xam rëy rëy mën na ko xaw bu doon ko am la sax nga xaw a mën a kiitu tuuti beneen bi mooy li nga xam day joué ci point yi muy yi yi wàññeeku ci say sa ngëm mooy li nuy wax at tahawunu bil maasiya woyefal ab bàkkaar ab bàkkaar dem ba woyef ci sa kanam ab jullit su dee bay def bàkkaar sax war naa teewul ci ragal yàlla loo xam ne dina ko fekk tuuti au moins waaye koo xam ne day day defi bàkkaar mel ni kuy naanam ndox loolu day tax bàkkaar bi gën a rëy maanaam laa yi maanaam du faale dara day def bàkkaar mais nit def loo xam ne dara nekku ci te lool nag bëri na ci suñu réew mi nga gis koo xam day diglu musique moom daa maam daanaka li moom du dara ci moom wala sol lu bon ci moom sax soo moytuwul nee na ci loolu lay nekkee en l'aise loolu problème la loolu day tax bàkkaar kii bi gën a wàññi beneen bi mooy al mujaahara fésal bàkkaar day gën a wàññi ay point yonent bi nee na kullu ummati muafa illal mujaahirin ñoom ñëpp yàlla jàmmal na leen lu dul ba mu des ñi nga xam ne dañuy fësal bàkkaar soo fësalee da day tax ñiy roy ci yow bari day tax nit koo xam ne mu ngi doon xaw a daw bàkkaar bi gën a am fit gën a am fit nekk du man kese koy def beneen bi mooy al israar mooy sax ci bàkkaar te caa jógee rek ab bàkkaar nekk di ko def di ko def chaque jour nga def ko wala chaque deux jours wala chaque semaine wala weer wu ne nga def ko bàkkaar boo xam ne kook yow rek loolu li muy wàññi ci point day gën a bëri loolu mooy lu jëm ci def ab bàkkaar am na leneen luy wàññi ngëm te mooy bàyyi ak jaamu yàlla bàyyi ak jaamu yàlla day wàññi day wàññi ak ngëm bàyyi yooyu nag ñaari façon la bàyyi goo xam ne soo ko defee dan la ca yedd ak bàyyi goo xam ne kenn du ca du la ca yedd bàyyi gi la yeddee mooy comme koo xam ne daa waroon julli ji julli jiw daa waroon woor wóoru am na mbir boo xam ne war la ci moom mu waroon koo taxawee defu ko defu ko boobu dana yedd waaye am na bàyyi goo xam ne day wàññi sa ngëm waaye kenn du la ci yedd day wàññi sa ngëm kenn doo ci yedd kenn doo ci bind bakkaar li nga xam ne danga koy bàyyi te mu nekk ak jaamu yàlla te kenn du la ci yedd wala lee ci bindal bàkkaar ñaar la loo xam ne loola war la woon nga bàyyi ko ndax ngànt loolu exemple bañ cey joxe mooy diin sala sala wax ci soxna yi naaqisaatu aqlin wa diin seen diine day wàññeeku nan la ko firee mooy ne day nekk ci bésam du mën a julli du mën a woor neewoonu leen ku def ay jaamu yàlla nu mu gën a bëree say say point di gën a di gën a bëri soo bàyyee nga wàcc rek nga wàcc rek mais wàcc gi mu wàcc ak point yooyu mu ñàkk est-ce que dañ ko cay yedd ah loolu la yàllaa ko digal kenn kenn du wax ne ci am bàkkaar ci nga xam ne it daa bàyyi luñ sopp imaanam dana wàññeeku waaye kenn du ko wax ne danga dañ lay yedd kii da doon naafila chaque jour chaque guddi mu naafila jékki-jékki bàyyi na naafila guddi gi guddi gi est-ce wax ne am na bàkkaar amu bàkkaar waaye sa ngëm day day wàññeeku day wàññeeku loolu lañ ci déggee mooy ne li ñu booyal ne al iman yazidu bi taati wa yanqusu bil maasiya est-ce que yanqusu bil maasiya kese bàkkaar a koy wàññi iman déedéet ngëm mën naa wàññeeku ci loo xam ne du bàkkaar loo xam du bàkkaar doonte bàkkaar rek moo ci gën a gaaw ba nee na wa laa yakfuru ahadun min ahli alqiblati bi zanb wa in kaana kabiran wala yuxbitu limaana gayru shirki billah kama qaala subhaanahu la in ashrakta la yaxbatanna amaluk nee na wala yakfuru du weddi ne diw ko tubbi na ahadun kenn min ahlil xibla ci ci ñi askanewoo xibla mooy julli ñi bidan ba maanaam nekkul ne ku defa bàkkaar rek ne génn nga ci diine ji même bu dee bàkkaar bu mag la sax même bu dee bàkkaar bu mag kooku leen tuddee ci téere yi alfaasiqul milli wala murtakibul kabira kooku génnu ci diine ji lii wanee ni defa bàkkaar ak du la génn ci diine fii ne dafa ne wala yakfuru ahadun min ahli alqiblati bi zanbi lii am na luñ ci waroon luñ lu ca lu ca lu ca bokk loo xam ne doon ci waxu ko mooy bi kulli dan bu nekkul bàkkaar bu ne moo lay moo lay génnee euh, bokkaale bàkkaar la te bokkaale mag bi day génnee nit ki ci diine ji kon bàkkaar génnee na ko waaye li jublu fii mooy bàkkaar boo xam ne yées la bàkkaar yi génnee nit ki ci diine mooy ne kon lii taxdiir ba lañ fay nattale mooy dangay wax ne bi kulli dan nekkul ne bàkkaar bu ne mooy génnee nit ci diine nit ki day def bakkaar ba pare des ci diine ji te mu nekk bàkkaar bu mag la la koy won mooy nit ki day njaaloo nit ki day njaaloo wala yaasu billah yan ci yàlla musal nit day njaaloo su ñëwee ci attikat bi lan la koy def su fekkente ni amul soxna musul soxna da koy caw fukki yoon fukki ñaar ñaar téeméer yoon bokk bu doon daa génn ci diine ji lan la koy def ah da koy rey riddatan man baddala diinahu faqtuluhu kon atte boobu mu atte rek dalay xamal ni kii génnul ci diine ji ndax su génnoon ci diine ji rey mooy nekk bu atteem ñi nga xam dañuy defi bàkkaar yenn saa yi njaalo yenn saa yi sàcc yonent sallallahu alayhi wax na ci xadis ne ataani jibril fa basharani anna man maata min ummati laa yushriku billahi shay'an daxalal janna jibril ñëw na baaxee ko xibaar bu neex bégal ko ne képp koo xam ne génn àdduna ci sa xeet wi fekk daawul bokkaale yàlla kenn wala lenn déndu ko aljanna bu doon kii kii def ñaaw ñaawteef yooyu da génn ci diine ji est-ce que dana dugg déedéet te soo déglu xadis lan la wax yun sala sa nee na bi jibril waxee loolu ma ne wa in zana wa wa sariq même su fekkee ndeen dafa njaaloon sàcc jibril ne ko wa wa sariq même su njaaloo sax sàcc moom day dugg aljanna su fekkentoon ni daa génn ci diine ji konoon aljanna du fa waaye dugg gii muy dugg nag lan la gan dugg la daxale janna lan lan fi duxul awali wala duxul ali mooy ne dañ dugg aljana waaw dañ dugg aljana moom benn problème waaye kañ lay dugg aljana nag moom beneen mooy ki nga xam ne moom su demee aljana su demee rek du jaar safa aljana lay dem rek direct ak duxulul maali mooy ne aljana daal lay mujjee ji aljana lay mujjee ji ki nga xam ne daa génn àdduna te daawul bokkaale yàlla nekk jullit faw mu dugg aljana faw mu dugg aljana te bi mu defee ñaawteef yooyu le su génnoon ci diine ji konoon aljana du place kii nga xam ne day rey yontu sallallahu alayhi wax sibaabul muslimi fusuuq wa qitaaluhu kufru li lay wan ne rek xool kufru la ko tuddee boobu kufru aswar la kufru bu ndaw bi la weddi bu ndaw bi ànd loolu lépp kii nga xam dafa rey yàlla tuddee na ko frèeru mbokkam kilifaay ki ñu rey fa man ufiya lahu a axiihi shay'un moom ba léegi yàlla nga koy tuddee mbokkam te moom daa rey ne kilifaay ki ñu rey ki rey seen mbokk la te ki rey ñaaw def na ñaawteef bu rëy rëy bu doon ñaawteef googu da koy ci diine yi konoon ko tuddee mbokk wa in taa'ifataani minal mu'miniina iqtatalu reyante rey lan def waaye ba léegi mu ngi leen tuddee ay jullit mooy waneen génnul kon defa bàkkaar rek ne génn nga àdduna génn nga ci diine ji du du gaawe noonu foofu ñu xool loo def ak nu mu demee nee na wala yuxbitul imaana gayru shirki billah amul lenn luy màbbal ak ngëm lu dul bokkaale borom bi tabaaraka wa ak kenn wala lenn waa am na lenn luy màbbal imaan waaye lii da cee gën a rëy rek na waqidul imaan moom bëri na di génne nit ci diine yi bëri waaye bokkaal nag moom daa nekk la ca gën a bon la ca gën a bon nee na kama kama qaala subhaanahu la in ashrakta la yaxbatanna amaluku nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ma bokkaale kenn wala lenn ma mabbal say jëf yonent dina bokkaale mais loolu daa waxee moom noonu ngir ñun ñu bàyyi suñu xel suñu bopp yonent bi moom du koy bokkaale ñu baax ñi mu tuddoon ca suuratul anaam lan la waxoon ci ñoom walaw ashraku la xabita anhu ma kaanu yaamaloon ak li ni màgg màgg suma bokkaale woon ak kenn wala lenn kono moo màbbal seeni jëf yépp kon bokkaale moo gaaw ci màbbal jëf yan ci yàlla musal leen wa anna allaha yàlla it laa yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru maa duuna dalika liman yasha loolu yàllaa ko waxal boppam ne du jéggaleeg bokkaale loolu waxoon nu ko démb waaye bakkaar lu mu rëy rëy rëy rëy su yéesee bokkaale rek xamal yàlla mën na koo jéggale ci coobareem nee na wa anna al ibaada wa anna ala al ibaadi xafadatan yaktubuuna amalahum kama qaala rabbuna tabaraka wa taala fi kitaabihi al aziz wala yasqutu shay'un min dalika an ilmihi ne jaam it yàlla boole na leen ak ay wattukat yoo xam ne dañuy bind seeni jëf comme ni ko yàlla waxee ci téeréem bu tedd ba te amul lenn nag loo xam ne dana réer yàlla ci loolu yàlla lépp la xam ku nekk ci noonu am na ñaari malaayka yoo xam ne yàlla boole na na la ñooñu ñuy bind li nga xam ne yaa ngi koy wax wala yaa ngi koy def maa yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid loo fi def rek loo fi des def rek xam ne bindu muy lu baax bindu ko muy lu bon bindu ko lu mat ko doon rek bindu raqibun atid dañuy takkoog yow di la surveiller di teew saa su ne nekki seer yu ma sëkk am ñoo xam ne jàpp ne raqibun atid kenn nga moo tudd raqib kenn tudd atid demewu noonu <laughs> demewu noonu de ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk raqibun atid ku ci nekk da lay ku ci nekk day takkoog yow ku ci nekk ab seede la ku ci nekk foo dem ma ma ma ngi teew kenn ki nekk ci ndeyjoor bi kenn nekk ci càmmooñ bi fu nu féete ci ndeyjoor bi ak fu nu féete ci càmmooñ bi boom xam-xam yi wax nañu ci lu bëree bari waaye li wér mooy texte bi ñëw ci waaye kon dañ cee war a dama war noppi ne kenn ki ndeyjoor kenn ki càmmooñ borom bi tudde leen xafaza loolu yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam wax na ko ci xadiisu qudsi wala xadiisu ilaahi yàlla mooy ki nga xam ne day ñëw bés penc ñu koy réglé muy ni ci bàkkaar ay dossiers yu tollu quatre-vingt-dix-neuf dossiers kooku bi ko yàllay laaj bokkoon ci lim ko laaj da ko ne azalamaka katabatil xaafizuun sama bindkat yi wattu yi ndax da la tooñ waa ji ne déedéet tooñul ma def man maa def lépp am na ñoo kon am na ñoo xam way na aleykum la kaati kiraaman kaatibin ku nekk ci no am na ñu àndal ñooñu ñooy bind te liñ bind lépp mu ngi ci téere boo xam ne bés penc dañ ci teg suñu bët nee na waaye nu bàyyi xel ne est-ce que ñooñu est-ce ñooy bind yooleeg yi yiw am na ñeneen ñuy bind am na ñeneen ñuy bind yooyu sallallahu alayhi wasallam nee na ajjuma dana am malaake yoo xam ne day taxaw ci ci buntu jàkka ji ku ñëw nu noté sa tur bind sa tur ku jiitu ni diw moo ji diw moo ci tegu diw moo ci tegu xam naa ne am na ci ñoo xam ne moom dañu yàgg feeri ci suuf list ku ñëw nu bind noonu lañ koy jàppee di bind di bind ba ba fay imaam bi yéegee ci man baat su ko defee ñu tëj dossier yi ñëw déglu imaam dun bi daal kenn ko dul ko ñooñu est ce que bokk noo ñaar ñuy bind déedéet ñooñu yeneen malaaka yoo xam dañuy dañuy bind na wa anna malaka bi idni bi idnillah kama qaala subhaanahu qul yatawaffaakum malakul mawti alladi wukkila bikum nee na malakul mawt day ngëb jël bakkani suñuy bakkan suñ bakkan yëpp suñ roo yi malakul mawti moo koy ngëb jël ko jëlee ci noonu ci su waxtu wa jotee yàllaa ko waxal boppam ne qul yatawafaakum ki leen di faat mooy malakul mawt alladi wukkila bikum moom moom la yàlla féetale ci noonu malakul mawti nag ñu bari ci ci nit ñi dañu koy tuddee lan la koy tuddee ah azrail loolu moo am na texte am amu texte amu dalil malakul mawti malakul mawti ko yàlla tuddee noonu koy tuddee malakul mawti mooy malaaka déegi moom nag am na ñu koy jàppale tawaffatuhu rusuluna wa hum laa yufarrituun am na malaaka yoo xam day ànd ak moom ci liggéey bi day ànd ak moom ci liggéey bi su ñëwee nag ñu ñu ñu téye nit ki nit ki nag moom su koy kii dara yombu yombu ci yoon sallallahu alayhi wa sallam demoon na bay eh, ñaq tooy xeb di di wax ne in laa ilaha illa allah inna lil mawti sakaraat sakaraatul mawti moom yoon sallallahu alayhi wa sallam li mu daj moom nun sax moom du ko daj ndaxte ñoo yàllaa leen nattoo noonu ngir gën a yéega seeni seen daraja waaye sakaraatul mawti moom dëgg la inna lil mawti sakaraat yan nu yàlla jàppale ci waxtu woowu rek nee na nal anna al xalqa woon bi ajaalim ñépp dañuy dee ci seeni seeni dig daje yi leen yàlla nattaloon ku nekk su waxtu wa jotee rek da ngay génn àdduna kii nga xam sax dañ ko rey nekkul ne waa ji daa dagg dagg dundum gi dagg ko de foofu la woon dundum gi war a yem ni ko ñenn jàppee jàpp ne ki nga xam ne daa waa waa da koo rey mooy dundam gi waroon naa paas loolu yaa ko dagg déedéet foofu la yemoon yàlla dogaleen nii lay dee ñëpp ay génn àdduna kullu nafsin zaa'iqatul mawt nee na suñ génne àdduna par nag ñi nga xam ne ñooy ñi texe arwaaw ahli ahli saada ruux yi ñi nga xam ne ñooy ñi texe baaqiyatu nday des naaimatun di bànneexu ilaa yawmi yubaasuun ba fay bés di taxawee ñoom day day day bànneexu yun sallallahu alayhi wa sallam nee na nasamatul muminin taa'irun yaxluqu fi shajari janna nee na doomi aadama rooga su génnee àdduna day nekk ab picc boo xam ne day lekk ci garabi aljanna yi di bànneexu ci garabi aljanna yi noonu lay nekkee di bànneexu di bànneexu ba fay àdduna yi àdduna yi di tukkee moom day continuer di bànneexu rek waaye wa arwaahu ahli shaqaa yi ñi xam nag ñooy bakk rooyi ñi texari fii si ji ñooyu moom day dañ koy mbugal fële ca safara da leen mbugal mu àddaba da leen mbugal ilaa yawmi diin ba fay bésab àtte ba bésab payoor ga boog di jotee wa anna shuhada ñi nga xam ne ñoom dañoo dee ci yoon yàlla ahyaun ñoom ñoom ñu ngi dund inda rabbim yurzaqun yàlla di leen wërsëgal nu ñuy dundee foofu na yàllaa ko xam waaye daal ñu ngi fa di bànneex yoon borom bi tabaraka wa taala nee na wala taxsabanna alladina xutilu fi sabilillahi amwaata bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun ñi nga xam ne dañoo dee ci yoonu yàlla faatu ci yoonu yàlla nekk ay shuhada nee bu leen foog ni mukk ñoom dee noonu rek jeex yi jeexi déedéet ñooñu jamono ji ñoo ngi dund fa seen borom tabaraka wa taala yàlla deen wërsëgal loolu dañ ko laaj yonent bi sallallahu alayhi ne nu muy demee mu ne leen arwaaxuhum fi jawfi tayrin xudrin ñooñu seeni arro ñoom ñépp moo ngi ci biiri ay picc yoo xam ne yu verte la picc yooyu nee na picc yooyu yëpp bu ci nekk am na ay tàgg maanaam picc yooyu am nañu tàgg yoo xam ne ñu ngi ko wékk ca arash borom bi tabaraka wa taala nee na picc yooyu tasraxu min aljannati xaysu sha picc yooyu dañuy wër ci aljanna dem fu leen soob su paree di jofe ji fële nga xam ne mooy seen tàgg ya ca ca arash ba kon ay picc ci biiri picc lay doon yoo xam ne dañuy wër ci aljanna nu leen soobee ron na ci xadis bi ne yoon borom bi tabaaraka wa taala ci jamono jooju de da leen di feeñu ne est-ce que bëgg ngeen leneen est am na loo leen bëgg loo leen soxla ñi dee génn àdduna ba yàlla di leen baaxi xéewal yooyu ñett yoon yoo xam ne yàlla da lay koy laaj biñ demee ba nga xam ne gis nu ni yàlla mii daal foofu ñu tontu pour mu bàyyi nu da ne liñ bëgg mooy ñu delluwaat àdduna ñu reyaat nu ci yoonu yàlla maam ñi li mu préféré mooy seen seen roo yi delluwaat ci seen yaram ñu dellu àdduna su ñëwee noo si unde pour ñu reyaat leen ci yoon yàlla ñu deewaat ñu deewaat moo tax am na ci benn xadis boo xam ne dañuy wax ne yàlla neneen may neneen may ñu wax ak ñi nekk àdduna gën leen soñu ci ñu góorgóorlu ci jihaar gi xam ne kat yool bi leen di xaar yool bu rëy la zéro un problème problème ci ñu yemale jotaayab tey foofu le te ñaan borom bi tabaraka wa taala mu barkeelal ñu liñ fi jàng هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا per il piano visto saranno saranno niente se ne dico quelli che quelli che Hava bıraktı. moom kay moom xam naa ne tey moom xataa bi xam naa ne moom xam naa dana doy waar moom. ah déet xadar gi moom xam naa ne foo ñu